Get up. ñu gën koo jege bàyyam sëñ Mor Anta Sali jugee fi ci Paataar ñew fi ci Kourou Mbacke waaye wa fofu dem ak waas ko ci Baba Diop diggante bobu nga xamne yeneen bi bi am ñaar fukki at yooyu nekk ci commerce bi di baagante jëlee ko ci diggante boobu Sëriñ Tuubaa moom tuubul ngay top lolu la ba bi nga xamne ne ci bi ci bopam jëlee na ko yobbu ko ci juróom juróom-ñetti at yu manke tuuti ndax histoire ba sax bo ko seetee day indi le juróom-ñetti at la waye juróom-ñetti at yu manke la

génne ki ko génne woon Makka ak mu ñëw Madina lu teral ko Madina ku dem Makka ku nekk xam nga ne Madina dàq Makka ndax Makka dañ ko faa toroxale woon kooku mooy Seydina Muhammad diggante boobu ndax boo seetee yonent bi mu ngi mi ngi dellu si waat Makka kat ndax boo seetee ci 600 euh, euh, bi mu 22 boobu la. Serigne a diggante boobu nga xam ne moom la ñuy wax ne juróom-ñetti at yi sax manqué na ci taarix waaye ci 630 boobu ci Rasulullah def fatxul Makka da def fatxul Makka rek ci 630 jël foofu 632 mu génn àddina du ma wax ay góor. yàq ko fédération bi de. leer de. du ma wax ay góor ndax loolu indi wu waaye doon na bi Serigne Touba doon na Seydina Mohamed ko doon ci zahir doon ko ci baati moo tax ma ne xalifatul bachir mooy ab xalifa waarisu xabdil nasir moo ko doon nag mooy ndoll lu wér di dénk kooku nag sëriñ Tuubaa ci boppam boo masaa gis nu koy màndargaal ci lenn mu ne moo guddul lenn la bëggoon mooy la wax wa alilu illahi wa wahabibu illahi moom sëriñ Tuubaa moo doonoon xaritu yàlla bu sotti bi nag waaye moom Serigne Touba it moo doonoon soppeem bi bi cobeel bi nga xam ne dafa taxoon ci seen diggante wan fa ko ibaadillahi moom kese bi nga naqal moo doonoon xiiru jaan ñëpp moo doonoon koo xam ne yàlla sama borom defoon na nga ngoy ci moom jàpp ci buum gii nga xam ne moom la yàlla rëppéeroon jox ko yonent bi moom Serigne bi doon na di ko doon. buum googu ci loxo bi lañ ko tegoon ndax alxuraan moo wax ne wax des nañ fi xam ni jaay. ñu daal di jël buum googu jox ko sëriñ bi ci loolu li ñu doon wax suñu leer ñu jox ko lu gën a bëri képp koo xam ne loolu nga ci buum googu sëriñ Tuubaa ci boppam fu fu fee nga dellu si yaa ngi keppaaru Seydina Muhammad ci jotaay bi ba pour le moment xam ne ak asal ci xam ne yi waxtaan bi fase li na naari asin baxta sin àndami kooku rek moom moo nekkoon moo koo xam ne moo dindi woon li tuddee ak réer jël jaani yàlla yépp soloon ci ñoom ak bu ñu gindi mm-hmm. moom moo nag moom Serigne Touba ci boppam ak cofeelam yàlla rek la woon waaye nag huwa xalidul Mustafa mm-hmm. huwa xalidul Muntaxa huwa xalidul Muntaxa xaasimil alami moo soppoon yonent boobu ñuy wax Moustapha di Seydina Muhammad waaye moo doonoon xaritu yonent bii tuddoon Muntaxa ba tey di Seydina Muhammad moom de moo takkoon nag doonoon jaam bi nga xam ne musta boo xam ne daan na ko liggéeyal yonent nga xam ne moo bokkoon ci mbirum xaasim kooku nag la Serigne Touba def ñëpp rasulullahi moomu fay na Serigne Touba lu dootul xam hmm. ndax. buur yàlla yu mag yëpp taxaw na ñëpp taxaw na yonent bi jël Serigne Touba yëkkati ko ci kaw jaami yàlla yëpp ba Serigne Touba ne fàng muy fàngam bii ko yàlla def moo tax ma wax ne addamuhu rabbul xifaat ala jamiihal afaat faadaxum ilal muraad saadaxum omami عذبه ابن العالمين مدا له سر مقصود خادم عالم العالمين حكيم عاتبه yàlla moo ko yëkkati ci kanam jaam yàlla yëpp yëkkati ko ba ca kaw ko ca kaw waaye suñu borom moomu moo màggal Sëriñ Tuubaa màggati bu toll ni nit nitu yàlla yi nga xam ne daan koo wut mu tuddoon sirul basuur te ku ca mës a jub diggante bu Xaadimu Rasuul moom yàlla moo yëkkati suñu Rasuul moom teg ko ci loxo ngir màggal bu ko màggal xas la boobu suñu aay yi màggal ko suñu aay boobu nag man mooy mooy sama lépp mm-hmm. li ma dugg ci ku ne xam na ko mooy ki nga xam ne man moom laa ci lépp xeetu yore ci ji yi nga xam ne boo bokk ci biiru xas danaa sotti bu rek jëm ci ñoom kon kooku dafay fàttelu rek ci bis bi iblis bi nga xam ne rek moo la jël gaal yi rek la ragaloon waaw sànq wax nga ko ndax nee nga sax xaaxal seytaane ànd ah, ak wax foofu la ko rendee ndax ku dul Sëriñ Tuubaa xam nga léegi nga dégg nit ku wax ne maa moom sama bopp Sëriñ rek a moom boppam waaw toujours nit ñi maa moom sama bopp waaye Sëriñ Tuubaa kese moom moom boppam ndax yàlla sàkk na ko boole ko ñaari seytaane ñun ay lëjë la iblis seytaane dina ko lëjë jël tubaab bi boole ko moom dina ko lëjë te tubaab ku mu jéemal deux heures de temps rek di nga xam ne sëriñ tubaab jàmbaar la deux heures de temps pour mu quatre heures waaye ñaari waxtu rek bu ko tubaab bi jéemalee xadaa bi ñaata nañ ko gis ngeen ko sànq maa wax na ko ci intervention yi ba muy bind di wax ak ah, jeex na ne woon naa leen dana kii ndax ñi ko jéemal ku dul sëriñ tubaab rek buñ la jéemalee moom di nga xam ne ñoom yàlla jox na leen ko sëriñ <laughs> tubaab rek la ñuy jéemal ñu dikk char de combat dikkul leneen dikkul mu noot leen dóor daan leen te dara tuuti. loolu mooy sax lu baax. moo mu ne faral ji bii sa mbir yi dafa faral ji lii moo jëm di gis di ñu maanaam. Iblis ci boppam Serigne Touba rek la daan daw ko muslu ànd ak nag kuréelam yaag ne muy àndal xam nga Iblis dafa mm. xam nga fi mu toll magal la tuuti xam nga la rek. mu am benn maître Ndiaye benn Ndeye Ndiaye ñu yabal ci mu yàq mbir yi waaw yabal benn maître Ndiaye xam nga magal na fi ne dugub waaye fi mu ne te ndaw mi la toll moo tax moo wax ne jëli jëli maam alal yi mooy gaayam yooyu ànd ak moom ndaw yooyu ak ñoom yooyu ñëpp dañoo mujj nag ñoom kuréel boobu yëpp ànd ak iblis di daw di di muslu ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bala ngay am problème mooy nga ne dinaa wax bañ bala ngay am problème mooy nga ne tey ma siiwal bala ngay am problème mooy tey jii li mu maamu wax léegi de mënee fu laa ko Serigne Touba bala la ñaar rek xam Serigne Touba foo dem xam na foo dem miin na ko foo dem xam na foo dem miin na ko moo tax ma ne arafahu kullul ibaad alifahu kullul bilaad yàlla ni borom jaam yi yàlla ni borom jaam yi yàlla ci boppam def na ci boppu jaam yi yàlla yi xam na lu kan mooy Serigne Touba yow kay yow mi ñëw pour bëgg mu xam Serigne Touba nga koy xam ne yow kay yaay présenté wu yaay yow sa biographie mu xam na mais Serigne bi moom xam na ko pare ñu ngi fépp.

parce que boobu nekkoon ci sëriñ bi ah. mu incarné lu dul yàlla ji. kooku rek mooy kooku rek mooy sëriñ bi. Fatal rabbu yaay baax xisbatu aw niilal ulaa falyatlubu awsal wala xaddi yu fii mu ne pencum Serigne Touba moo dem kërum Serigne Touba moo dem ndax Serigne Touba kat moo doon ñaan yàlla ba mu nekkee ci géej ga ci mooy bu naa fi ba àgg ci yàlla ñu ko wax ne ko may ma jamono yàlla ne ko jamono ngoog ak waa jamono lépp bi zaman yi suñu borom moo tax man saara nii la mu naa aw saara nii la moom daal yaa xam luy wut ci sëñ Tuubaa faju aajo la wala yëkkati ko wala boo ne bëri boo demee ci sëñ Tuubaa am moo tax réew ku mu neex ku mu naqari même yow politicien bi nga xam ne dañuy yor sa micro naan amul sëriñ amul Tuubaa amul lii boo toppee boo demee ba toll ci campagne électorale nga xam ne ñoom mooy seen yombal xëy la bis boobu rek la ñuy daw ku toll foofu nag Touba boo demee ngërëm ngërëm jaar feneen foo xam ne bokk na ci kër Sëriñ Touba yi foofa tamit dañ fa fekk ngërëm ngërëm te te ngërëm ngërëm jooju warul dara lu Sëriñ Touba bi taxaw ne yow mi nga xam ne da ngaa bëgg pal yow mi bëgg yëkkatiku yow mi bëgg ko aajo Sëriñ Touba ne ñëwal ci man maa ko yor. yëpp mën na xaw sal wara ah. loolu nag moo tax it bu mu tolloo hmm. fii nu toll nii lii nu toll rek local la xaw ma local yi local yi ah. ah nga xam ne nag ne gaa yi nga xam ne àddina ak sawara mooy seen jafe-jafe te ñun loolu du suñu problème. gaa yi nga xam ne àddina ak safara mooy seen problème te ñun loolu du suñu problème. ñooñu loolu doon seen problème dañoo jël xasida yi def ko mbirum murid yi waaye loolu sax du mbirum murid yi. gaa yi nga xam ne jotiwuñu sëñ bi ba jébbal ko seen bopp. ne sëñ Tuubaa yi. ku ci jàpp te ñu ko di di di ci dund yow man xiyam mën ngaa amul texe. waxuma ne xaar xaaral di mën di def xas-xas di ñàkk njëkk ànd sa yow mi nga xam ne da ngaa bëgg mu texe rek jàppal ci xas yi suñu tubaab yi. moo tax ma ne ñun loolu du suñu problème. lu taxul suñu problème. Oh. ndax lu taxul suñu problème. Serigne Touba moo taxaw si woo Cheikh Rafal mu dikk mu ne ko ngir ñu mën a ne woo muy jébbalu texe oh. ba naan leen munakkir ak nakiru xàmmeenu leen waaye nee leen nee leen aslim taslim aslim taslim aslim taslim aslim taslim aslim taslim aslim taslim day deel ilal jinaan billahi rek day deel sans retour yàlla sama borom subhaanahu jël na teraange doomu aadama yëpp yàlla jël na ndimbalal doomu aadama yi yëpp teg na ko ci loxol Serigne Touba a Ahmadou Bamba ba képp koo xam ne dimbali ko ci nga ko ci kenn xamul kenn xamul tedd moom la moo tax ma ne xam na ne daal kulla man abdahu xaaliqu zaman kan maa xalaqa zaman bi kahrihi wa karmihi barakatu laa tansilim li Cheikh Ahmadou Khadim sonnal bay laaj yàlla kañ nga sa ndigal yàlla ci boppam it di leen tontu leen sama ndigal moo ne du leen jege la du leen jege la Sëriñ Tuubaa nag moom rek moo ne bërëb jaarlu ci coono boobu oh. te laajul yàlla ndax moom moo ne bërëb ne wallaahu yansuruni muy bëy bii ci doon wax mu ne man Xaadimu Rasuul rek maa ne bërëb yàlla mu dimbalul ma dimbalul boppam ñu ne ko xaar mu ne nit ñi ngeen di gis ñu may topp mu ne du leen ci bàkkaar de dama leen a amal njëriñ ci bi ma nekk ci jiit ak bi ma ñibbisi